nuyu di leen jaar yéen ñuy suivre ñu war a ci benn vidéo wax ci arrêté bi nga xam ne am na ci lenn ci gaynde yoo xam ne ñëwoonuñ biig nañu def seen teewaay fële ca groupe ba mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi gan ci bi le ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen man suñu ay vidéo au taaral fii ci sport sama gars yi nag tout surtout abonné bi ngeen ñu a maa jàppale ak commentaire bi ak partage bi ak ngeen ñu ndax boo ñu sànnee dana am lu muy jariñ ci suñu compte bi ngeen bàyyi nag commentaire yoo xam ne commentaire u indiscipline la maanaam commentaire yoo xam ne la ku a bàyyi moo gën dañuy def commentaire yoo xam ne commentaire intellectuel la ak commentaire professionnalisme ki nga xam ne mooy doo vidéo bi su ko sa commentaire man la apprécier man la wax merci ndax loolu da koy jariñ ndax ñun dañuy jàng ci yéen xam-xam football ngeen di wuti ñun tuuti ñu wuti ci yéen lu bari ndax yéen ñi déglu yéen ëpp kii wax te kii wax mën na juum mën na def bari na daal li man na def bari na ñu ñëw nag ci information bi ah, gaynde yi bii gànna gi ñëw na mën nañu wax ne Iliman Ndiaye rek mooy seul gaynde bi nga xam ne ñëwagul li ka tee ñëw na mooy doomam moo war a am benn tout tànk maanaam doom daal xëy na ah, lu yàggul dara war naa man a am benn bébé xëy na Iliman Ndiaye loolu moo ko tee ñëw te franchement maanaam moment yooyu bu fa soxnaam tolloo c'est normal mu soutenir ko jàppale ko ba bu jaaxlee moom soxnaam gis Iliman Ndiaye mu gën a dalal xelam kon daal nañu ñaanal gaynde bi soxnaam si mucc ci jàmm mu ñëw ci teñeer bi incha allah suñu mbas ñu nag Brésil ak ñu nag bene bi ñu war a njëkkee amoo leen ngeen partage ñu suivre nos bon merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax